compétence. est-ce que quand vous vous êtes rendu compte que nekkuñu ci dynamique gu def appel à candidature euh, am na sax euh, ku ko assumer ouvertement euh, poste chef de quartier de duñ ci def appel à candidature waaye post yëpp candidature appel euh, nu mu tudd ñun ñooy ñun ñooy nommé Pastef moom mooy nekk aux manettes Ngagne dem Touré assumer na ko est-ce que bi nga gisee ne nekkuñu ci logique respecter appel à candidature est-ce que alerté nga affaire yi ngay wax nii yëpp di ko critiquer est-ce que yow def nga des alertes def nga des mises en garde est-ce que jël nga position est-ce que du aujourd'hui da nga mer rek moo tax ngay dellu si waat ci loolu yëpp non non non non pas du tout moi je passe mon temps à faire des émissions sur Walfadjri je le dis sur en tout cas yi nga xam ne tey c'est des canaux naturels je le dans nos discussions aussi je le dis parce que man duma bàyyi ba ba dara xew ma di di di wax déedéet du mer non man meruma parce que je occupé des fonctions yoo xam ne vraiment euh, sant naa ci yàlla amul dara lu may merloo parce que judduwuma aussi ñu ne da ngay occupé tel poste je ne suis pas obsédé par ça man sama obsession mooy lan mooy le développement de ce pays qu'on de l'ombre qu'on sorte de la politique politicienne qu'on sorte des pratiques politiciennes de bas ñu jublu ci liggéeyu développement parce que chaque régime c'est toujours les mêmes pratiques régime bi boo gisee may wax ni c'est parce que dama gis ne yoon bi ñu jëm on est tout droit dans la politique politicienne tout droit la preuve on est aujourd'hui le le le le le 25 septembre n'est-ce pas mais on a vu en fait ñoo xam ne xalaatuñu woon ne tey danañu soutenir Pastef parce qu'ils n'étaient pas dans dans la coalition mais di soutenir Pastef pourquoi qu'est-ce qui les lie Mame Boye Diao euh, c'est c'est vrai ça vous gêne public le le le le soutien de Mame Boye yaa ngi koy wax rek daf la gêne ça ressemble à un appel du pied ah bon ah oui ça un appel du pied man dama jàpp ne dama jàpp ne conviction politique nit da ko war a continuer c'est-à-dire il hmm. faut avoir une conviction politique li nga xam ne da ko commencé sos il faut le continuer li nga xam ne aussi ci say principe yi la fal la bokk il faut pas nga fàtte ko boo ko fàttee mooy indi un peu ce désamour par rapport à la population te j'ai l'impression que de mois en mois on carte de ça. mais Mamboy Diao dafa boo jëlee boo jëlee le cas de de de du PASTEF PASTEF le tout PASTEF commencé wul ci ci ci kii bi ah, ci investiture yi ah. Parce qu'on a vu, euh, de manière en tout cas régulière, des sorties politiques de jeune du PASTEF, euh, je ne sais pas, c'est Ngantouré, après, du ministre de la Santé, mais qui dise ouvertement, mais ñu passagers la ñuy dañuy privilégié c'est la vérité dem na sax ba comparer ne un sénégalais pacifien mais vraiment des propos dangereux. non ministre de la santé boobu dama xamul bu ñu def déclaration. fan la parce que dama naan ëllëg demain mën nañu fexe. mën nañu fexe ba ne finalement même poste chef de bureau boo yorul carte Pastef mais dañ la recruter mais loolu il faut il faut nit ñi wax ko c'est pas parce que nit ñi dañu yaakaar ne rek boo ko waxee euh, duñ la nommer wala duñ la investir nga ne nga noppeek moom. mais mais Mame Boye Diao dama dégg damay gis muy dérouler un argumentaire Mame Boye Diao il dit que moom il a voulu euh, diriger ce pays-là il a présenté un programme sénégalais yi préféré. Euh, le programme de Bassirou Diomaye Faye et donc moom nee na dafay respecter la volonté populaire c'est un patriote et boo xoolee euh, déjà gis seetaan naa ko ci investiture président de la République euh, mu ne il est là il est à la disposition pour indi li nga xam ne moom mooy seen son savoir ensuite pour les législatives mu ne moom euh, il soutient il soutient il est-ce que mënuñu liir affaire bi ci ci njort mu mu mu rafet. bon il a le droit mais c'est suspect. c'est suspect waaye pour man. mënuñu ci ah, am njort bu rafet. non njort bu rafet mën nañ ko ci am on le respecte.